woman. Galaxy woman. Babacar Ndiaye moom def ñu mënuñ ko def président ñu lay gërëm lay sant. merci beaucoup yow jox nga ñu idée jox nga ñu courage. dina aménager aucun effort pour le développement du Fort quoi ba Tëngéej lu musul lu gëj am am na fi on a été champion on a été euh, vainqueur de la coupe du Sénégal gëj na fi su sommet si lañ def mais tamit si équipe bu TFC lañ ko defee loolu nga def nag daf ñu permettre ñun ay jeunes ñu ni loolu Babacar Ndiaye def mën nañu ko si mën a jàppale créer dara nga nangu tamit ne amna ay jeune yu nek sama ginaaw ils sont en train de travailler le président Niambay le président sensar et les présidents des autres équipes nek nekk Tëngéej ñuy suivre si yow si ni ngay doxalee li nga defal pour Ndargu Ndaw nag waaw defal nga ko waa Ndargu Ndaw de mais da nga ko defal pour Tëngéej gep tu l'as fait pour tout Rufisque parce que ñu war a dem jëli phase nationale mosul dugg Tëngéej nga def li ñaax la ñun wa Tëngéej dañu ñaax parce que Ndargu Ndaw nekkatul Ndargu Ndaw ruq bii mais Ndargu Ndaw Tëngéej gépp la on a vu la présence de tout Rufusquois, mais les coachs, les dirigeants. Je ne terminer sans remercier mon ami, mon frère. On a eu le bon moment. l'université, n'est pas masse. Les moi, quand il nous. a un président de fait faire bon dragon dans les conditions de performance pour gagner. Mon angle fin dragon dans le niveau bi. dañ koy remercier pas masse. na C'est defal C'est say li engagement say projet yàlla na yàlla tamit Badou, l'homme de confiance de, de, de, de, Babacar. Mais aussi, je remercie le staff technique de TFC qui nous permet de jouer football match. Nous croyons sur nous parce que nous devons aller équipe yu mag lañ fa daje ñu war a toll ni ay TFC tey lu bëri mën si jàngat match bi encore une fois président au nom de Ndargu Ndaw au nom de la population Fiscoise au nom du président Sansar, Sarr nous vous nous vous disons merci beaucoup waxaat na nag ne TFC moo yóbbu équipe bi mu dem mu dem mu dem Kaffrine loolu du lu yomb su ko neexoon mun sama oto du dem may nañu bu ko mun sama oto du dem mu defal ñu loolu on lance tamit fi la lancer un un appel aux autorités que am na am xam tamit ñoom la waron on la demandé bi ñu leen lettre ne bu ñu mu am ben remise symbolique du drapeau rufisquois à la de Ndargu Ndaw le maire interpelle nañ ko si les agents on les a un peu interpellés lolou bëgg nañ ko ñun wa ndar Ndaw ñu taxaw waa Tëngéej xam ni drapeau bi bi Ndargu Ndaw la drapeau Rufisque quoi la ñu jox ñuko ñun buñu ñu fofu foofu dignement on va représenter Rufisque pour gagner ko encore fois merci président merci beaucoup tout Ndargu Ndaw vous dit merci et on vous sera reconnaissant pour toujours merci beaucoup merci beaucoup. bon wax di do du beuri di len gërëm rek Ndargu Ndaw bo len demee fofu xam nañ ne dootoo leen Ndargu Ndaw Tëngéej ngeen c'est c'est toute la ville de Tëngéej bo len démé gëm len ñu door leen nak bañ len door bo len génné fo sortir la tête haute. dem len so fo être solidaire il faut ngeen solidaire xalaat yenen équipe bi néwon newoon tëngëj yeb yi waroon dem te ñu yeen rek dem donc ngeen dem ngeen joxé bamu mu li dess nak ku ci mënta japp nañoo japp ci mais bu len sax xaar ku len jappalé yeen avancer len di dem rek bo yeen aggé ñu bari dinañ ñew fekk ci len autorité yi ak joueur yi ak ñep ñu ngi leen di ñaanal ngeen di coupe bi fii incha merci beaucoup ala jërëjëf so lu may mujjee lu may mujjé tejé rek moy tété day fool final dañ soxla population quoi ñep mais ñun Ndongo Lo sos nga ñu on sera présent si final boobu supporter incha allah yéen nag supporter yi ngir yàlla def nañ li ngeen war def pour ñu coupe bi bu ñu koy néew pour Ndongo Lo mais tamit pour le président Babacar Ndiaye parce que moo ñu képpee merci beaucoup